waaw ah, dañ xam nga fi mu da ngeen nekk ci ci ay lijjanti waaye dañu bëggoon rek nga wax ñu naka nga gisee déjà dialogue bi nga xamante ne njiitu réew mi woote ah, jàpp naa ni lu lu war la te war ci gërëmaat encore une fois président Macky Sall ci yaatuwam décision yëpp mënoon na ko jël waaye mu foog ni war na war mën a waxtaan ak ñëpp depuis su suba mu ngi fii toog di waxtaan ak ñëpp ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ waxtaan ba jàpp ni yàlla nañu yàlla ci yàlla may mu jur jàmm pour Sénégal ñëpp ànd nekk benn quelles que soient les opinions quelles que soient les positions ñu xam ne Sénégal ñoo ko bokk ñun ñoo war a sàmm réew mi bu ñu fooyee ba nga xam ni ñu dugg ci ay guute yu nga xam ni réew yu bëri ñu ngi ca kon tey damay jàpp ni ñaan yàlla jum naa ni avec euh, kilifa diine yi seen teewaay euh, kilifa aada yi seen teewaay dana jur jàmm pour Sénégal ci lool la ñuy ñaan. waaye li koy seize candidats yi boycotté ndax yaakaar nga ne loolu du doon tache noire ci bile dialogue. non dama jàpp ni ñoom sax euh, même bu ñu ñëwulee exprimer wu nañu xam nga président li mu rek. mooy xam position des uns et des autres donc ne pas venir aussi o dialogue est une forme de dialogue damaa jàpp ni war nañ ko positiver xam ni exprimer nañ seen position position bu leer nañ président dana xam na ñii lañ lii lañ lii mooy seen position ci position définitive bu président di mën a jël war na leen mën a xalaat ci ñoom li ñu wax ak seen seen defin loolu laa jàpp loolu aussi mooy démocratie mooy république. ndax bu dialogue bi jeexee yaakaar nga dinañ am date loolu laa gëm loolu mooy mooy. à la kulli àll il faut ñu am élection à la kulli àll il faut ñu am élection donc jàpp naa ni lii daal nañ yàlla def euh, yàlla may ñu ndam yàlla may may Sénégal jàmm euh, loolu mooy mooy lu ñu war a jàmm jàmmu Sénégal.